yemoog alxamis fukki fan ak ñett ci weeru juillet ci atum 2023 mu ndigal xam ne joxe na ko boole ko ay ñeenti kuréel yi muy togg mi xam si ñu ngi koy amal ci tokkooru Serigne Cheikh muy wilaya ma fatixul bi si su fi natul amal ak ñaari guddi ndak ñaari guddi Dakar mbokk yi kon bu ko defee ñooñu lañ fas yéenee àndal ci wii waañ bi sa safihun li sarfi anhum basari ورغبتي عن سوي العصيان في البشر xaalu safiyun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safin wa fi kadari xaalu safiyun li xubbi xaaliqi maliki wa lam akun lil baraaya astaki darari قالوا سفيء لكوني لم أقف أحدا وما رجوت سوى الرحمن ذي القدر قالوا سفيه لخفي نهجم الجيناس الشيخ سيدي فخل الخير في الخبر فقلت خلوا سبيلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki Wilaya TV ñu ngi leen di siyaar bu baax te di leen doole siyaar bu baax a baax ci bés bu tedd bi nga xam ne si ne Cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko digle ñu àndoon ko ne yéen daaw jéeg àndal ko yaakaar mooy troisième fois ñu rafet lu baax a baax ànd bi xam ne si ne suñu borom boole nañu ko te bi dem na ba jur leneen loo xam ne si ne am na xameel am na am na cofeel te loolu suñu borom mi nga xam ne si ne moom moo ñu ko boolee ndigal li moom bi ko Cheikh Mouhamadou Mountakha joxee rek lañ jot ñu ànd ko waa wilaaye ak euh, samantu amaan kayre mbay ak ñaari guddi ndakaaru yi di ci nos di ci nocc ba dañoo dem maanaam liggéey bi sax dañ ko miin miin koo xam ne si ne ndax loo xam si def nga ko trois fois yaakaar naa boo ci dikkaatee di nga xam bu baax fi ngay jaar ba niñ ko àndee woon daaw jéeg àndaat ko daaw ànd ko ren jii noonu lañ ko àndee di ko di ko di ko liggéeyee te te liggéey bi ñu sas mooy ñu ñoo féete ci wàllu restauration ah, di daara mu Fatima Bisri ñu ànd ko restauration wilaya ànd ko restauration Safinatoul Aman ànd ko restauration ah, ñaari guddi Ndakaaru liggéey boobu nag nga xam si ne moom la ñuy dénk muy liggéey muy jëm ci wàllu xewli yooyu xam si ne seen war a yóbbu ca ci la nekk nii di ko di di di ci liggéey liggéey bu am solo ba xam si ne liggéey bi fu mu toll nii daanaka ñu ngi cappaandaw ye maanaam mat na li li xam si ne moom moom def nga xam ne fi toll nii oto bi ñëw ñu jël xewli yi yóbbu ko fas yéene ko jébbal doomu aadama yi Cheikh Mamadou Mountakha ku ko xam maanaam xanaa dañ ko ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam loolu may ko fan ko dundal ànd ak wér gu tawfi alxiba sanatur daare ak wér la rek moom na ko ñaanal Mbàkke Bàlla ndax loo xam ne ne digal nañu ko rek njariñ jullit yëpp waxee moom lañu àndal moom ndax xam moo xam ne si ne moom moom lay dox ba digal ñu lii nga xam ne si ne ak ëllëg mi yëpp yëpp yëpp suñu borom wàcc fi ak salaam tawfi ak xiba daare ni wér ak wér képp koo xam ne si andi nga fi jàngoor yàlla na ki suñu borom saafara képp ko xam si ne andi nga fi tawat yàlla na suñu borom saafara képp ko xam si ne andi nga fi jeexi jaax àdduna àlaxira suñu borom jàppandala la lépp ak Seex Ahmadul Xadim euh, salaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba nu sant yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak Cheikh Ibra euh, noo euh, mu yàgg fi te wér sëñ Modou Mbend Fall ak sëñ Ahmadul Maxtaar di nag nuyoo bi ak cent yëpp jaarale ko ci jëwriñam ju tedd ju mag ja Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mu jàllaleel ni ko ci mbooleem kuréel yi nga xam ne ñoo bokk liggéeyub euh, tookër bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex barke Seex Mustafaa al Karim ndax liggéey bi nga xam ne moom loolu nu sant kat tawféex yi jaam yi rek la ci jublu tawféex boo xam ne bii da koy yéene jaam yàlla yi rek loolu la ci jublu nu wëlbate ko santaat it euh, waa wilaya bii nga xam ne danoo bokk ñoom liggéey bi ci ndigalul mun Muntaxa seen jëwriñ ju màggee di sama sëriñ sëñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma lëkkalenu nu bokk nun ñaari guddi ndakaaru ci ndigalul jëwriñ Baye ñu nga jeng ak ñi mu àndal nu bokk liggéey bi sant ci yàlla bu baax kontaan ci tey ñaan sëriñ bi jàppal nu liggéey bi moom mi nga xam ne lu mu jàpp rëcc mu jàppal nu liggéey bi ba moom fa mu ko bëgg a yóbbu mu yóbbul ko fa boppam barke sëriñ Touba ak Cheikh Ibra barke mu Moussa Mbacke sant nañu nag bu baax yéen itam ñu ngi leen di ñaanal ndax ñaan yi du mën a ñàkk ay ndaw yoo xam ne nii dañoo jël seen tànk teg ko ci liggéeyal yàlla ak yonent bi sëriñ bi ku mel noonu boo ko gisee sant ko gërëm ko ñaanal ko sama mbokki taalo bi yi nga xam ne it ñoo jóge ci ay barab yu fasante ko ñii jóge buntu pikin Pàkku Lambaay bokk ci kuréelu ñaar bi de Ndakaaru ñii jógee Grand Dakar ñii jógee Grand Yoff ñii jógee Medina fu nekk nit jóge fa ñooñu itam da doon jaadu ñu sant leen gërëm leen di ci jël kenn koo xam ne kii mooy sëñ jiili mii di nga xam ne waajuram Baye Kalsaan Dieng mooy waajuram topp ci Baye Ndiouga Dieng mi nga xam ne mooy président daayira bi moom it dañ koy beral cantuk boppam ak sëñ Kalsaan Alsaan mii nga xam ne moo jiite mook Pape Diouf ñoo jiitee liggéey bee nga xam ne moo ne ci buntu Pikine nu bokk ko muy daayira yoo xam ne nii dañoo jaxasoo seey ci ñaari guddi Ndakaaru doon fédération ci ndigalal sëñ Muntaxa Basir ni munoo waxee ne yéen ak ñëpp a ko bokk ñaari guddi Ndakaaru sëñ Muntaxa daf ñu wax ne yéen ak ñëpp ko bokk fexe leen ko yaatal da ngeen xam ne du yéen dong ko moom yaatal leen ko képp ku ngeen jortu Serigne Touba na ngeen yegg ci moom ngeen jotal ko ndigal li te xam ne yéen ak ñëpp a ko bokk. wëlbate ku jël ab taawam Serigne Kosso maam Thierno di taawam boole ko ak ñun mu nekk président d'honneur jiite mbooloo mi moog Baye Ndiouga Dieng loola tawféex la joo xam ne ji wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla sant ci yonent bi sant ci Serigne Touba sant ci Cheikh Ibra di wàccee kàddu gi foofu xam ne it comme da ngeen ne ci yitte di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd bu baax jërë ngeen jëf. qasaayidi min mujizaatil muntaqa salla alayhi man hadaahu wantaqa haaja qasaayidi ya qalba kulli man lahu saadatan walin xaadal aman